بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإيمان وإسلام إلى يوم الدين أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى نيجي سنت يالا بو باخا باخ di ko ñaan mu defal nu ndimbalul àdduna ak alaaxira di julli ci sangu sang yi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak saxaabaam yaag ak gaa yi ko topp ak mboolem ku ànd ak moom di rafetal ilaa yawmal qiyaama waxtaane woon nañ ci biñ fi mujjee ci jikko ju rafet ak solo soo xam ne am na ko tey nag ñu bëgg a jël benn ci jikko yi rafet yi waxtaane ko jikko ju jikko fexe ba doo lor kenn waaye fexe bi doo tooñ kenn fegal ay lor ci jullit ñi dafa bokk ci charte yi tax ngëm yàlla mat ab jullit ngir mu doon ab jullit day doon koo xam ne jullit ñépp mucc nañ ci lori làmmiñam ak lori loxoom mooy du tooñ kenn ci aw làmmiñam waaye du tooñ du tooñ kenn ci ay cëram gàddaay itam baax na jóge ci barab dem ci barab baax na waaye yonent bi nee na gàddaay dëgg mooy gàddaay lu yàlla tere loolu mooy gàddaay dëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam itam am na benn gis mu giñ te bu waxoon rek te giñut ñu gëm ko waaye mu giñ ñetti yoon ndaat ne giñ ne diw gëmut kii de gëmul yàlla kii de gëmul yàlla ba muy ñetti yoon ñu ne ko waaw ki ngay wax kan la mu ne ki nga xam ne ay dëkkandoo mucc ñi ci ay loram kon képp koo xam ne yaa ngi lor sa ay dëkkandoo wala sax yaa ngi lor nit ñi xamal ne sa ngëm yàlla des na bu baax a baax tooñ nag la ci jiitu mooy nit ñi fegal leen sa lor yi say lor waaye yemuñ ci nit ñi kase waaye sax ba ci mbindee fi ak booleem ki nga xam daa yor ak rek warees naa moytu di ko lor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leeral na ne am na ci soxna soo xam ne ñu koy mu ñu koy mbugal ca safara dana ci yàlla musal te li ko waral mooy am muus la tëj ba mu faatu moo tax mu dugg safara nga xam ne ci sababu muus moom yi ci ci la ko yàlla duggale safara kon waxuñu nit ndax da ko tëj joxu ko mu naa lekk joxu ko mu naan tëj ko bàyyi ko noonu bàyyiwu ko it mu fori waaye da koo tëj joxu ko mu lekk joxu ko mu naan bàyyi ko mu fori ba musuma dee ci la ko suñu borom meree dugal ko safara nañuy xool yàlla ci mbindeefam yi yàlla moo bind ñëpp moo bind mbindeef yëpp kon mbindeef mu ne bul xool jëmmi mbindeef waaye xoolal suñu borom subhanahu wa taala mi ko bind kon nag bu fekkee ne fegal leen ay lor lu am solo la bañ leen a tooñ itam moo gën a te am solo kuy tooñ mbindeef yi nag eh, mën na koo jural mbugulum yàlla fii ci àdduna wala mu jural ko mbugalum yàlla fee ca alaaxira te xam ne àdduna yàggut yaakaar naa ku fi doon def téeméeri at te dund juróom fukki at rek li la euh, wala téeméeri at bari na lool ci ñun te yaakaar naa am fi téeméeri at te téeméeri sax bariwul waaye nit at mu ñëw rek daa war a jàpp am na am at mu wàññi ci ak dundam bis bu jot mu jàpp ne daa am bis bu wàññi ci ak dundam ñun nag ñooy jàpp ne suñu dund daa yokk waaye daa wàññi waaye wala sax yàlla mbugal ko ci àdduna mbugal ko ci alaaxira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na tooñ ay lëndëm lëndëm lay julal nit ki yowmal xiyaama kon tooñ baaxul suñ borom moo ne woon dama araamal tooñ ci sama bopp def ba araamal ko ci yéen kon bu leen tooñante suñ borom it nee na yenn saa yi day bàyyi kuy tooñ mel ni ku ko ku amul ci moom soxla ngir bëgg koo jàpp rek ngir bëgg koo jàpp inna allaha la yumli lizaalimi xatta ida axasahu lam yuflithu daa di jàng ne wa kazalika axzu rabbika ida axasa alqura wa hiya zaalimatun inna axzahu alimun shadid suñ borom ak jàppam lu metti la te lu tar la euh, suñ borom nag ñu bari dañ koy jàppee doomi aadama suñ borom amut xol bu doon xol la suñ laat waxoon rek ku mën a jël mbindeefum suñ borom subhanahu wa moo xam ne dimbalewoo ci yàlla lu toll kawar nga sañ koo rende sañ fees sañ lakk te sa yaram dawut war ngaa xam ne bu ku tooñ yàlla bu la jàppee bu lay mbugal du ko yëgal yàlla kon lu suñ borom ku matamaytu la euh, suñ borom nag bu la jàpput àdduna la jàpp alaaxira ndax yaakaar naa doomi aadama buñ buy faatu euh, ci ku ko fekkee rek ni ñu koy def takk ba mu dëgër gas xóot ba mu xóot ñu suul daal ne jébbal nañ ko boromam waaw yaakaar naa ne foofu ku fi bàyyi xel da nga xam ne suñu borom subhaanahu wa taala kenn mënu koo rëcc te fanweeri jaaruwaay ak lu topp ma nga ca kanam ginnaaw bi bu nit bu faatu balaa dugg aljana wala muy dugg safaan xadis boobu ci wax itam ah muy ki nga xam ne dafa ënd day jëf-jëf ju baax naam waaye day tooñ ak di lor mbindeef yi waxoon nañ ko bari na ay jëf yu baax lool lu mu def aj na umra na saraxe na def na lu baax waaye day day tooñ bu ëllëgee de loolee mu tooñ loolu mu def ci lu baax lépp mën na koo faye ba mu jeex tàkk te bu setut dañ koy jël li mbindee fi daan tooñ di ko ko ñam daan tooñ di ko ko xëpp ba la ñu mujjee ak moom yóbbu safara te moo ne def na lu baax ba tàyyi kon tooñ danger foofu la àgg beneen bi itam waxoon nañ fi soxna su nga xam ne dugg na safara te li ko waral mooy mbindeef la lor mooy am muus kon lor bu ci xeeb dara ak ki nga xam ne sax soxna soo xam ne nee nañ dañ doon wax ne moom day wax dëgg yàlla euh, daawul julli naafila lu bari waaye daawul saraxe sax lu bari ndax soo mu way la daan saraxe soo mu soo mu wow nga xam ne daan saraxe bu doon kii dañ naan dagg mburu yu ndaw la daan saraxe waaye nag ah daawul lor ay dëkkandoom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax ne ma nga àjjana kon ndekete nit ki bu fexee ba téye boppam ba du lor kenn ak jaamu yàlla mën naa sakkan waaye nit lu mu bari bari ak jaamu yàlla tey lore nga xam ne muccagut yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne ki gën a yées ci mbindeef yi nit ñi nga ki nga xam ne nit ñi dañ koy moytu di ko moytu ngir ragal aw loram nga xam ne nit koo xam ne euh, ñëpp dañ koy moytu te dara waralu ko ngir mucc ci moom te bu dee ñun dañuy foog ne kooku moo am full moo am fayda waaye loolu du fulla di faydi suñ borom subhaanahu wa taala ab jullit day woyof ab jullit day baax ak jullit ku nit ñi ñeme lay doon waaye koo xam ne ni ku ko jublu ku nga xam ne ku mu bàyyi bàyyi bàyyi ko kooku du ko ju baax ah yal nañu yàlla defal dégg topp def jàmm ci suñu réew mi jàmm ji nag nañ koy ñaan waaye di ko sabablu te it démb rek maa ngi wax ak ku baax naa ko ñaanal jàmm ci réew mi mu ne xanaa def ndigal yàlla yi rek bàyyi ay tereem la tàmbalee ci kaw bi ci suuf kenn ku ci ne def li nga war a def ndax ku ne xam nga li nga war a def te kenn ku ci ne it yaay wéet ak sa boroom ndax wax ji yëpp bari na waaye yaakaar naa li ci am solo mooy ku ne xam yow say responsabilité lu mu fu mu tàmbalee fan la yam ndax lu ko mooy joxañante bi rek lay doon kii yaa def kii moo def te coow la loo xam du jeex mukk kon yàlla na yàlla defal dégg topp rabbana atina fi dunya xasanatan wa fil axirati xasanatan wa qina azaban naar rabbana la tuzig qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab tawil lana umran saxi lana badanan wahab lana rushda wa tawfiqa ya allahu waftax lana kulla baabin kunta fatixahu li saalixiina min alxayraati ya allahu warud lana kulla zi saabin wa zi xarajin waysiran kulla zi taasiri ya allahu wa kammilan kulla ma nanhu wa naqsuduhu wahab lana kulla ma naxtaaru ya allahu rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwab إذ ناديته بيا ولي أياس من لوح دجا ولي إبليس إذ ناديته بيا ولي